amee ku mel ni Serigne Cheikh Aliou Mbacke koo xam te ni ndox lu ne xam na ko ci mm-hmm. am ku mel ni Serigne Mamoun bu Sëñ Fallou mm-hmm. Sëñ Moustapha Gaynde Fatma mm-hmm. maanaam ñeneen ak ñeneen bu doon tey lim mën na wax des milliers de Mbacke Mbacke ay bibliothèque ñoo fi nekk ñoo ah, xam ne ay bibliothèque ñuy am problème yi moom dafa ubbi brèche bu am solo sax loolu rek comité bu ah? distinct boo xam ne mën nañu xalaatal xalifa bi di ko rendre compte kilifa gu ñëw dañ naan la demal ci ñoom maanaam ngay ministre ngay directeur dañ naan demal ci ñoom. boo demee ñu gaaral la ci jamono. waaw moom lool loolu la xalaatoon mooy comité boo xam ne ci ron xilaafa bi lay ne xalifa bi xalifa d'honneur lay doon. Mm-hmm. moom moo yore kàddu gi. Mm-hmm. mais ñi ci suuf ñoo yor commission yi lépp lu mu ci doom lu bu dee éducation ñoo ko yor bu dee wàllu santé ñoo ko yor ministre bu ñëw ak fu gan mënu jógee tey wax ci wàllu santé ñi ngay giseel. waaw yaay wax ak ñoom ba tënk programme ñoom ñoo lay àggale ci sëñ bi buñ la yóbbuwut sëñ bi doo dem. ok bu ñu dem ci sëñ bi lu leer la ñuy yóbbu <laughs> buñ dellusiwaatee loolu day continuer mais ab saako bu bari bën bën du am njëriñ. maa ko gëm. <laughs> ah bu nu amoon nag ñaari acteurs ñu mën a dugg tamit contribuer. waaw waaw waaw parce que ñoom ah, ci la. waaw waaw waaw Mbacke ñun boo amee ban gis nga am rek par rapport ak.